politique du Sénégal. Il est un leader qui mérite beaucoup de respect dans ce beau pays. De manière, il ne prend pas des décisions dans le hasard. Comprends okay. Il dit, 2012, il était avec Macky Sall. Mm. Pourtant, si il dafa gagner dem. Hmm. Kon bu gagnez dem, tok dem élection législative, gagne deuxième position, mo xam ban accord la trouvé avec le président Macky Sall, bo dem accompagner Mais hmm. de ba japp ne beaucoup bu koy accompagner, il l'accompagne peut-être sur l'intérêt général de la nation. Te bu suivre le discours de la fa gis. Hmm. Bu mu démé nak bo gis aussi tay amna peut-être yeneen projet yu mu war a waxtaan Ousmane Sonko am na droit parce que aussi il faut que ñu xam que te des adversaires ne sont pas des ennemis loolu il faut que mu loolu moo war dañ si bopp. mais là on a dit qu'on veut pas. non sont pas des laisse-moi terminer loolu moo war dañ si bopp Sénégal gëm naa que ne tey bokkuñu vision bokkuñu principe mais war nañ am droit bokk plateau discuter débattre. sur hmm. l'actualité. Hmm. débat sur l'avenir politique. gis nañ fi en pleine campagne en 2019 Abdoulaye eh, Macky eh, Ousmane Sonko mi am dañuy woote moom mooy anti système. Artek campagne bi rencontre le maire Abdoulaye Wade pourtant ils ont discuté. Quand ils ont discuté, je pense que même scénario entre Ousmane Sonko et ak hmm. Ousmane Sonko est mon ex chef leader de l'opposition. Moi, Macky Sall l'homme fort du pouvoir. Hmm. Gemna Seck il a discuté avec Ousmane Sonko que l'intérêt général du pays L'une fois fa ak l'autre. mais je pense que ça se repose sur l'intérêt de notre nation. mais Abdou l'intérêt général du pays c'est important. Mm-hmm. mais Idrissa Seck ak Sonko qui se retrouvent là on se pose des questions. question yoo xam ne Abdou yaa ma gën a xam que lees waxul par rapport ak Idriss Seck quand même. Mhm. Sonko fii la euh, taase ay cadres yu nekk bu si ba mu nee retrouvé ki xam nekk moo di le président Macky Sall dañu naa 2019 toog fii doon euh, mhm. xam nekk moo di euh, pour ñu mën a fol président Macky Sall mhm. mais dafa fekk mu dem ànd moom il a perdu tout son aura d' accord bañu ma ma loolu xam nga dafa am lu ma laajte ok wax naa la ko ba ne la hmm. Idriss Seck ak Macky Sall ñoo àndoon di xeex hmm. comme Ousmane Sonko ak nous Seck ñu àndoon récemment di xex même beaucoup fekkee coalition mais je te dis Idriss Seck ak Macky Sall ñoo ànd coalition benn Bokk carte pour yobu Macky Sall au pouvoir hmm. après Idriss Seck génnaat ne ci procédure am réew mi vrai ou faux hmm. genn na dem na élection 2019 mu nek deuxième force de l'opposition. Hmm, bu mu fa génnaatee dem intégrewaat dem adhéré waat encore une fois si pouvoir dem liggéey ak ñoom. ok léegi nag bu mu fa liggéey man xaw ma yan base la Idriss Seck ànd ak mag sax parce que euh, a poser a xam si lan fa la samay argument fondé wu xaw ma yan base la coïncider wala lan base la ànd ak Macky Sall. ce qui est bu ma seetaanu mooy day dem liggéey pour l'intérêt Sénégal moo ko soxla day dem liggéey pour Sénégal mm-hmm. dem na. élection yaa ñëw mom képp xam ñëpp xam nañ posture de Seck ah nanguwul troisième man candidature am mm. to dama japp né posture boobu de sec am mom lay xal tous les tournants du pouvoir am ko parce que aussi le président de la république Macky Sall góoru leen gën a doon góor man il est un homme que j'estime sur son côté dafa bañoon ñett waxna naa ne max Sall ba bëggoon troisième mandat Abdoulaye Wade en 2000 lépp lu mu laajoon ci kaw suuf. àdduna hmm. ak alaxir Abdoulaye Wade jox ko ko. mais il a été un homme intègre ne Sénégal def ma servi depuis ndaw ba léegi kon. duma du duma du duma du ma du ma du les textes. voilà jaajëf merci beaucoup euh, Abdou Mbaye Faye ça a été un plaisir de vous recevoir temps bi jaana bàyyi nga daal tàggatoo téléspectateurs yi. voilà merci beaucoup Serigne fall dama leen di remercier rek encore hmm. une fois. Hmm. Euh, di baalu ak aussi Sénégal yi nga xam ne ñu ngi seetaan peut-être bu fekkee ne dégg nañ ci lu nga xam ne neexu leen. li xam ne que toujours c'est pour tirer dans le bon sens et dans l'intérêt général de notre nation. voilà. Euh, di encore jaalewaat Sénégal senegal cities bi nga xam ne dal na suñu kaw. Hmm. muy accident bu nga xam arrivé na barki dembu voilà ben bis bu drapé bu am presque cinq morts ak quelques blessés ñu ngi jaale ñu nga xam que sen mbokk yi wëñeku nañ ci biir. mais aussi di ñaanal les blessés yalla may leen fiir les étudiants qui nous suivent aussi à travers l'université de Dakar mang leen di nuyu to bu leen fàttali aussi dañu nekk ci en période de campagne. Hmm. je suis membre de la coalition Rupture voilà di ñaaxaat aussi les étudiants preuve de maturité et de sagesse xam que tay si hmm. élection lañ toll nañu xoolaat ci sur quoi qu'il faut hmm. qu'il faut se baser pour faire des élections parce que tu gis na li nga xamné que arrivé na campus chaque jour ñuy dégg ay détournement des millions et des hmm. millions hmm. de l'année en l'année yàgg ko fi gis je pense que tey dafa jot mu jeex tak ñëpp a gis réseaux sociaux yi temps koy attaquer ñu ngi et détournement yu ken xamut donc je pense que il faut xaay xam amical que bi aussi tay fofu lañu ñu jàngé gestion fofu lañu ñu jàngé njit